marché lundi foo sànni mbatt mu taaj ay jaaykat lal fépp ku nekk ci ñoom nag lal ab pexeem ngir woo ay kiliyaanam donte ñu ngi ci weeru koor sëñ bi moom ay daal la lay jaay boole ko ki sous-vêtement mu gis ni rek ni korité bu ren gisagul benn yoon client yi. sant yàlla rek mais ak client yi moom moom vraiment vraiment moom a dox nii. ko mën a jaay fi mu nekk nii fi mu ne nii moom vraiment ren ji moom la nag marché boo dem noonu la mel fépp la ñoon damay wër rek ci marché laay dem a ah, mais problème bi ah jaaxal nañu de Sénégal moom fi ne nii moom soo bëggee dëgg-dëgg vraiment affaire bi dara doxu fi moom. geneen wet ba beneen jaaykat moom muy xamle rek ni njaayum korité naam du yomb ndax fet bi des na ay bés daanaka ñaar jàpp ñetti fan laata fet bi ci la ñuy gis client yi. waaw bon événement bi moom client yi ñu ngi sant yàlla daal mais waroon naa gën a neex nii quoi parce daaw dàqoon na nii xëy na weer bi moo sori xam nga ni weer bi demee ni mois bi demee nii moo moo tax koy xam naa njaay mi xaw a dëgër mais korité moom njaayam ku ne xam ne ni trois jours lay doon wala quatre jours mais daal yàlla baax na daal ñu ngi toog di patienter pare di xaar client yi quoi. kii moom ay yëre xale lay jaay yu ñu ñaw ba mu yànj mu nangu ni client yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk te jaaykat moom yaakaar dong moo koy ba ca marché ba. waaw mesure bu ma neex mesure bu nekk am na si daal. waaw moom la taay bu ne taay bu ne am na si waaw. moom ñu ngi ñëw ndànk-ndànk rek waaw ni ñu doon ñëwee moom ak par rapport ñu ñëwee tey wuute na moom. mais nu ngi yaakaar jaaykeen moom toujours yaakaar la am parce yaakaar moo ñu indi si marché bi nu muy demee dëgg-dëgg doo ko xam. mu des ay bés laata korité ca marché hebdomadaire yi. jaaykat yaa nga fa ne gaañ ak seeni bagage tey xaarandi client yu koy jënd